korite euh, ren bi ak korite daaw bi euh, du benn ak euh, mbas mi nga xam mom mo moo ci biir dëkk bi vente yi wàññeeku na duñ leen ko neub tamit et lool li ko waral moy nit yi dañoo ragal a génn ba paré xaalis amul lool mom mën nañ ko comprendre tamit te lépp a stoppé dal xam nañ ni ko daal aduna bi lépp a stoppé et c'est très normal que nit yi dañu ñëw di jënd di dañu ñëw di genn parce que événement yi tamit arrêté nañ ko ba pare rassemblement yi dañ koy téré donc xam nañ ni que vente wàññeeku na corridor ren bi mom neexul comme beaucoup daw bi mais sante yalla quand même. dañu jël ay mesures déjà ñu ngi fi am ak suñu alcool gel la client yi bu ñu dañ leen di may ay masque tamit te dañ leen di wax ñu respecter distance bi tamit ak tamit duñu bëgg di rassembler tout le temps client yi ñu bëri ci biir boutique bi. donc euh, mesures de précaution yi moom quand même ñoo ngi koy respecté pour que client yi prochaine fois ñu ne ah ñoom laa ma boutique de ñoo ngi koy respecté donc am nañ euh, mën nañ dem suñu xel dina dal mën nañ dugg pour di jënd comme léegi nit yi mënuñoo déplacé wu donc dañuy woo suñu livreur wala ñu dugal ko si ça sàcc whatsapp bi wala facebook loolu la ñuy def pour mën a jaay suñu produit donc vente en ligne bi mu ngi ñuy jàppale bu baax a baax et danañ dañuy def sax ay réduction sur côté livraison pour comme ça client bi jarul muy kii muy déplacer wu et dañuy joxe beaucoup plus de détails si produits yi nekk di ça marché dafa nekk clients beaucoup mieux ne ñëpp dañ fi daje ñëpp dañ fi dajé façon nit bu nekk nga fi dajé dina am ñu sol masque dina am ñu solu masque bu xanté bi day am ak yoy non loolu moo c'est c'est évident que clients yi toog seen biir kër te dañ leen leen comprendre tamit. xam nañ ni que korité ren bi dina dina wuute ak korité daw donc nit yi dañuy bëgg di gën a relax donc du coup nous on sort en fait nos produits yo xam ne ay produits yoo xam feuilles, dafay feuilles cher wala genre yo dina nek dina répondre attente ñëpp en fait loolu la nit yi yëpp dinañ ko bëgg di jënd dina nek produit boo xam relax na et voilà quoi dina nekk nit dinañ ci nek à l'aise pour mën ko jënd y aura pas de problème pour que nit yi génnee xaalis ak yoyu day accessible à tout le monde en fait euh, brodé brodé ak chiffon de soie brodé chiffon de soie ak euh, tissu coton et rek tissu déjà si tàngaay la ñu nek tissu coton yi donc ak basin tamit am ñu ñuy jënd basin ba tey mais xamna ni ne que instant yu brodé mo gëna nek ci kaw quoi mo gëna mo nek ci kaw parce que ñun am euh, type de brodé yu bëri prix yi tamit wuté nañ donc ça dépend rek si yow ba nga bëgg ko ñëwoon ci laa Lama boutique comme man de préférence souvent fii laay jëndee euh, lu ma soxla rek fii laa koy jëndee tey nag dama ñëwoon pour jëndal xale yi bazin jëndal xoolal sama bopp ci brodé yi loolu moom ma taxoon jóg. nga lépp loo gis ci àddina rek dafa am exception waaw tey boo gisee li ñu yeex yi ñëw sax nga xam ne peut-être euh, dëkk bi ni mu demee moo ko waral waaye nag. du tere parfois li ñuy farakus neew ndax euh, daf euh, suñu borom daf ñoo digal ñu liggéey mais daf ñoo digal aussi jour it ci kaw suñ ko mënee ñu xaw a bégal suñu njaboot loolu moo waraloon tey ñu jóg ñëw xoolal suñu njaboot luñ leen bégalee tuuti. ku mel di man moom boode lay gën a bëgg mooy gën a léger ci tàngaay bi ak yooyu waaw su fekkee xale yi nag moom basin moo leen gënal. মই তখন মই তখন শল বজাওঁ এই শল দেই So.